bismillahi rahmaani rahiim xul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi xul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid xul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad laa ilaaha illa allah allahu akbar bismillahi rabbil falq min sharri ma xalaq min sharri xaasidin iza waqab wa min sharri nafaasaati fil uqad min sharri haasidin laa ilaaha illa allah wallahu akbar bismillahi rahmaani rahiim wala ma sabra bi naasi maliki naasi ilaahi naasi min sharri wasaasil xannaas allasi yuwaswisu fi suduuri naasi laa ilaaha illallaah wallaahu akbar alhamdulillaahi yawmi diin إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما أرسلنا ينفقون الذين يؤمنون بما أرسل وما أرسل إليه وما أرسل إليه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahman rahim allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la taxsuhu sinatun wala nawmun wala nawm يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يدرك اسمه العظيم لا إكراه في الدين قد تبين رشد خيفا يكون بتاغوت بلا فقد استمسك بالحروف الوثقى لا انفصام له الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا ينفقون تاخذ يخرج منهم إلى الصبر وكسبوا على لله ما في السماوات ما في الأرض وإن ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويخصم من يشاء ولا قوة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فرقوا بين أهل موسى وأصحاب السبيل وأعطانا قرآنا ربنا المسير إليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وخير ما اكتسبت ربنا إن سيدنا أعطانا ربنا أعطانا من إسمه وحمدنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم jubla ila siwa nahwi wa bil ikhlasi judli ila aljannati bil ikhlasi rashidu ya saburu salli bi salaam ala lasi faaha bi ahsani kalam sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi fi lhaali wal maali wal takfini bi aq surati lfalaq wa surati nasir asaya abal xalaq واكتب له صلاة عليه بسلام في آله وصحبه باقي السلام بكل حرف بيته وروح بشارة يبدو بها ما روح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وهم حمدك وخالدك وحمد خالدك وشكرك وخالدك ما أحببت وردته ورديته له في الحال وأبي أخلاك لخبه بتوحيد حصولها وبعد حصولها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وافتح لنا كل ما كنت فاتحه للصالحين من آخرة ورد لنا كل سي صعب وسيحة ويسر كل سي تحسن والتف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن قدر ربنا وصل على النبي وسلم وقد به حاجة كل مسلم آمين asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki taali bokki jur yi ñu ngi leen di nuyu ci turu sëñ Abdou Khadir xalifa Daaru Salaam ak ci turu sëriñ Abo Mbacke rakkam moom sëñ Mourou waaye nag ci turu sëriñ Ndiaga Sylla mi nga xam ne moo jiitee alxuraan ji nga xam ni moom lañ fi jàng li nu fi dajale nag mooy bis bu mag boo xam ni Baye suma Mbow ak i rakkam Baye Isma moo ko doon màggal ànd ak i rakkam muy sëñ Modou mii sëñ Say sëñ Modou Say mais ak Baye Joxaane ak doomam sëñ Mamoun ak seen ak seen i rakk ñoo topp ci seen ginnaaw kilifa muy baay Ismaïla Mbow di màggal bis bi nga xamee ne ci la sëriñ gaawaan jóge woon Ségou di bis boo xam ni àdduna bépp ko war a màggal ndax dafa mottali sëriñ Touba ab liggéeyam ndax keroog bi nga xamee ne As Camara jox na sëriñ Touba ritwaanullahi alayhi ca Ndar lam ko joxoon bokk na ca la des ca mbalaan ma dafa ni Cheikh Anta maam Cheikh Anta ko yor ndax booy dajeeg tubaab bi yóbbuloo ko kon demuk ségu dafa doon loo xam ne fa ñu tàmpee demuk géejug sëriñ Touba fa lañ tàmpee demuk ségu borom gaawaan sëñ Moussa joxe ci ay fiir na ni ko kuñ ku doon saahir war a ñëdd baatin saahir balaa mën a taxaw am baatin daal di ko ne ab rëbb day xiif ak mar mbaa muy nangoo guddee mbaa du fetal luñ taanu dañ ko yow na français teg na tummaa rabbu ngir xam ni mat nga xut bu maw nga yoonu murit sampi nga seen saw des la ñuy giiroo ba amuy daaya daal di ko ne yaay mënal réew mi ci at yu bekkoor yaa daal lewal baadoo léegi ñu fi buur jirim yi ak miskin yi ak ñiy baayu ak mosulakat yi waaju ñëw nga waayoo kon loolu moo ko yóbbu segu ci ci ci ci misaal muy baatin boo xam ne àggale liggéeyam sëriñ gaawaan sëriñ Tuubaa moo ko yóbbu segu kon nag bis ba nga xamee ni fa la jóge woon segu ñëw wuy ñëw ci Daaru Salaam ci dëkkam bi day mel ni bis ba Serigne Touba jógee woon Gabon te ñëw ci Daaru Salaam fii keroog la Bamba sotti duusi barke Daaru Salaam muy ngal walangaan jëm Mbakke kon moom Cheikh Anta duusi barke yi nga xam ne moom la jóge woon jële woon Segu Daaru Salaam gii la ko sotti kon nag ku màggal bis bu yàlla màggal nag ka ko defoon bu la neexee lam ca amoon da ca am mooy bu ko boo ko itte woo ba lam defoon nga am yéene def ko nga ne naa màggal bisam boobee lam ca am ku nekk da nga ca am ku lool kon nag bu ñu amee yéene boole ci ñëpp. moom Baye Isma ak njabootam ñu boole ci ñëpp ne leen kaay leen ndimbalal yàllaa ngi nii kooma ngi nii ngërëmal yàllaa ngi nii buntub yàllaa ngi nii kaay leen nu màggal bis bi sëñ gaawante woon segu su ko defee kenn ku ne ci noonu am lu toll ni bis la la la sëriñ gaawaan amoon ndax ci yéene ma koy may kon ñu ngi leen sant bu baax a baax ñu ngi sant Baye Isma bu baax a baax moo ko njabootam te xam ne amal nañ leen ak cant kon nag nañu xam ni lii Baye Isma def dafa dugg ci ci yonent bi salaam li waxoon ne doomu aadama faatoo ay jëfam day dagg lu may ñett mooy sadaxatan jaariya muy sarax boo xam ne jëf ju baax jox ñu koy def ba noppi te yaa ko sos kon luñ ci def lu nekk ba isma dana am toll lu toll ni li nu ci am te du yàq ci sunu am dara waaye nag wala doon saalihim yeddoo la wut njaboot goo xam ni tàggat nga leen yar nga leen xamal nga leen lu baax ñu koy def sa ginnaaw te yaa leen ko xamal ñooñu it luñ ci am da ci am lu toll noona sunna su rafet nga def ko koo xam ne jaar na ca yoon wa nga jaaroon kon danga nga ci am lu toll noonu kon ngëneel ci ma aba ismaam bari na lool waaye njaboot gii dinañ ci am lu toll noonu ndax kat képp koo xam ne topp nga ka nga war a topp mu jaar fa mu war a jaar buy dem da lay yóbbaale adda xaltu nafsi wa jami ahli fii jëy bi abdul wara sil fadli sama jëmm ak sama njaboot sama lépp laa ko dugal ci poso yonente asalaam kon nag ku bokk ci njaboot gi rek dugg nga ca loola kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di ñaal ba isma sun borom ko ay leer te taxawul ko ginnaawam wan la ko borom gaawaan mi mu doon liggéeyal Cheikh Moudou Mamoun mi mu ko jaaree ci moom waaye nag kuy liggéeyal Serigne Touba te mooy liggéeyal maam Cheikh Anta la ci jiitu mooy alxuraan mu tànn Daaru Salaam gii mënoon na koo defe feneen ni nañ moo ñeneen ñëwaat waaye déedéet comme li mu soxla am na Daaru Salaam mu tànn sëñ si la ni ko alxuraan jii kat noo ko bokk waaye dama bëgg nga jiital ma ko ndax kat sëñ Moudou Mamoun waxal na la ci loo xam ni bëriwut ñu ko wax ndax booba dañoo am fii baaw naan ju am sëñ mu daan santaane nañ jàng ay kaamil sëñ njaga jiite woon kaamil ya ba ñu jàngee ba ci ëllëg sa sëñ mu daan woolu ko mu ñëw mu ne ko njaga mu ne ko mbàkki mu ne ko li ngeen jàngoon de sunu borom nangu na ko dem leen jàngaat leneen kon nag jëf joo xam ne am nga loola leer ne sunu borom nangu na ko kon sunu borom moom bu xasee ne waaw du ñu déet kon nag ku yéegal sa jëf ci ku sunu borom nangul sunu borom dan la nangul kon nag mu tànn sëñ njaga waaye sëñ Ndiaga tànn daaree Daaru Salaam ji nga xam ni moo ko jiite bi mu demee ba itte yi dab ko mu nekk feneen di fa liggéey sëriñ bi moo tànn Sëñ Mudu Maamun ak ñi ma àndal di doom ne nañ ci taxaw ñu taxaw ci taxawaay bu rafet rafet rafet ne leen nañu taxaw alxuraan ji alxuraan nag doon loo xam ni képp koo xam ne jàngal nañ ko donte ñetti kaamil donte benn araf la la nga bëgg lépp mën na ko cee am waaye ñu koy jàngal ku fi newut te ñetti kaamil képp doyat na ndax ñetti kaamil benn bi moo doon ak leeram benn bi moo doon ab dundam benn bi mooy doon wéttalam waaye suñ ci defee fukki kaamil ak ñaar nag ak yéen i jeneen loola àdduna bépp xaj nañ ci kon Cheikh Modou Mamoun jàng nañ ci daari kaamil ji fukki kaamil ak ñaar yoo xam ni bis tax ñu jàng ko waaye yoonu murid bépp xaj nañ ci waaw ah, na nag sëñ sëñ Mamoun nag ki tur sëñ Maxtaar Mba Silla mi nga xam ne mooy sëñ Njaga nee na mu ngi sant waa Kër Baay Isma bu baax ndax sa Baay suma la mu defoon ñoom dañ koo yokk waaye wuñ wàññi wuñ ci dara ndax mës dugg ci menn mbir rawatina mbir mii te mosu cee waxtaan moom ni ko lii laa am nii laa ci def naan lañ def njaboot gi saa su nekk waxuma ñu yëgal ko bis bi waaye lépp lu nar a def ci bis bi ak lañ ko nar a defee dañuy waxtaan ceeg moom boobu ni leen jub nañu door def loola teraange di ko fekk fa mu nekk di fekk ak njabootam ndax njaboot gépp ak njabootam sañ jaga ne ne leen di ñaanal ci ñaan ga sëriñ Tuubaa santaane woon ne fa kullu man asrafa yad'u lana bi xayri ma yud'a li abdi asana ko gis ma defar masaalik mais nga xam ne ahyatu fihi ma amatahu wala min al uh, ulumi israrahumul kara dekkal naa ci xeeti xam-xam yoo xam ne réeru na ndax nit ñi fàtte woon nañ ko bi leen ngëm meen gaaree ak mooy yàlla ak àdduna te aaje nañ ko mënatuñ ko xamul fu ñu ko jëlee suñu borom jaar la ko ma jël ko kon nag koo gis ko ne a ma ñaanal ñaanal jàmm bu jëf lu rafet mooy rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati naa wa qina azaban nar kan ko ñu ngi ko koy ñaanal de de ci cantuk sa njaga googu nag daara Daaru Salaam gépp dugg na ci sa njaga nee na mu ngi sant daara Daaru Salaam ji nga xam ne ba ma ko sosee ànd ak ñoom ba nëgë ni ñu ngi toppaat ci ginnaaw sëñ Mamoun te mosuñoo yàq dara kon mu ngi ñaan ci barkeb alquran mii nga xam ne moom du neen imma ayakuna hujjatan laka aw alayka benn mu nekk aw lay dala layal mbaa mu lay ba tëj la kon nag yal na bokk ci ñuy layal ba ubbil nu bunti àdduna ak bunti àllaaxira cant gi yëpp nag ñu ngi koy teg ci loxob sëñ Fallou Galas mii sañ Maxtaar nee na mu ngi koy sant ndax taxawaay bi nga xam ne moom la taxaw ci Daaru Salaam ci wàll yëpp ndax kat fépp foo xam Darou Salaam war nañ faa taxaw ca taxawaay ba war a mat taxawaay ba sëñ moo sëñ Fallu mi taxaw na fa taxawaay bu bu bu mat sëkk. bisimilahi rahmaani rahim ausubilahi mina seytaani rajim man la Ndeye Diop di doom si alaaji Isma Mbow ak Kolle Mbow nga di ma laaj lu am solo muy li waral bis bi ak solo bis si bés bi nekkoon daayira boo xam ne dañ ko jëloon teg ko ci sama loxoy waajur Isma Mbow mu sos ko comme daayira yàlla dogal mu def ko jàmm gën sëriñ Modou Rokhaya joxoon ko ko bi yàlla dogalee mu def daayira boobu mu nekk première màggal sunu borom doxal ah Alaaji Isma Mbow def si mission boo xam ne nii Serigne Modou Rokhaya kontaan na si kontaan na boo xam ne nii xam na ne Alaaji Isma Mbow rek moo mën a yor bës bi di ko doxal ba ba mbëgg mu yegg fa mu yegg fa mu tàmbalee ko jàmm gën jag saaw di ko doxal di ko doxal di ci def di ci wax ànd kook njabootam gi ñu tàmbalee ci soxna Fatou Gueye soxna Kolle mbaw yàlla yàlla yokk leeram soxna Naar mbaw ak soxna Fatou Kolle Jongu ñun njabootam gépp ñu ànd ak moom di ko liggéey di ko liggéey ba suñu borom ndogol ñoo ñu nga xam ne sëñ Isma Mbow jóge na fi ah sëriñ Modou mi nga xam ne mooy xalifaam te mat ko sëkk ne jombati naa taxawal bës bi jagsaaw du yëkkati kilifa yi looloo waral bés bi ñu indi ko Daaru Salaam gii biñ ko indee Daaru Salaam nag ah Alaaji Modou Mamoun ànd na koog rakkam yëpp ànd koog doomam yëpp ba suñu borom dogal sët yi ànd koog ñun ñuy sant yàlla bu wér a wér xam ne bés bi ñu ci fan fanweeri at tey bañ koy tàmbali ñun ay xale yu ndaw lañu ànd koog ñoom ba nëgëy ndogo tey ci ñu am ay njaboot ànd koog ñoom kon dañu sant yàlla bu wér a wér di sant sëriñ Isma Mbaw di sant sëriñ Modou Roqay mag ko joxoon di sant njabootam gépp nag di wax ne bés bi bés bu am solo la bés boo xam ne nii li ci sëriñ Isma Mbow ñaanoon ak lim ci façon ak lim si yéene woon yëpp maam Cheikh Anta Mbacke ak sëriñ Modou Maam moom doon liggéey jàppale na ko si loolu ba tey jii sëriñ Modou Maam mun yore ko yorin bu rafet leeral ñu tamit yoon wi xam ñu yoon wi jàngal ñu ba tey jii ñu man ñu ànd ko sunu mag yu jigéen ñii yëpp. kon nag dañuy sant bu baax a baax a baax a baax màggal gi juróom-ñetti fan la ci rakkaat ji gàmm bi maam Cheikh Anta jógee sëgu loolu la ñuy màggal muy koy wooxee ne tuddewu ma ko ay jàng tuddewu ko bésu puukare ak màggal la màggal gi nag mekk màggal goo xam ne vraiment kontaan nañ ci trop ñu ñu njaboot Isma Mbow bokk koog dëkk yi bokk koog am di jàmm yi bokk koog mbàkke mbàkke daaru salaam bokk koog ñëpp li nga xam ne nii nag moo jëm si wàllu waañ bi ak wàllu gan ñi fiy taxawu comme man gan laa tamit nekk Abidjan sama mag jii di soxna maa Anta Mbow dina leeral waañu ba mu leer nañ sëñ Boodu Roqe yi nga xam ne moo jël liggéey bi teg ko ci loxoy sunu waajur mu di ko def danaan jógee Daaru Salaam di ñëw dakaar centenaire ñu fay dajeeg moom di fa def ay xéewal ay bernde ba ba muy dolliwaat booba ñun ay tuut tànk lañu sunu ndey di ñu tàggat ci loolu. ñu teg ci woowu yoon ba ñu dem ba xam luy waañ tey la waañ wii ñu gérer tey bokk kook nag dëkkandoo yëpp bokk kook bokk yépp tey jii bu ñu koy wax taal nañ fi fukki mbana ak ñett muy biig démb bi ñu jógee Ndakaaru ba tey ci toggu ci yàq ci nde ci loolu lañu ne ndax maam Seex ku ko xam rek xam ko ci bernde ci bernde rek nga ko xam kon ku dib taalubeem benn rek ngay xam ànd koog sunu jëwriñ ju jigéen muy soxna Ndey Silla di waajur ci sëñ Fallou Galas Silla da daan jóge fii di ñu fekk Ndakaaru ak waa Daaru Salaam ñëw yore waañ ba tey jii da koo fekk ci jagadi sax waaye dafa daal di wér ci boppam taxawul liggéey bi ni mu waree ba mu yegg ci jàmm ñu ngi koy sant moom soxna Ndey Silla moom sëñ moo di roqee di sant nag mbooleem lu sëriñ gaawaan jaboote sant nañu ñëpp sant nañu ñëpp ñëpp ànd nañoo ñun àndit bu rafet bokk nañoo ñun bis bi lu di beer na wala xéewal def nañ ko fi ba mat sëkk sëkk sëkk sëkk kon nag sant nañ bu baax.